dangay dox ba sonn xam nga di jaay ci mag ba ba ngoon jotit benn oto doo ko am ba ñibbi fa nga dëkk dafa met ñu ñu ngi dëkk Pikine démb danoo doxi fi ba Pikine xam nga loolu métti na te li ko waral lépp yoon bi xat na. lépp ak lépp ba léegi dafa am mais lii dafa mel ni comme lépp ak lépp parce que je comprends pas benn problème bu mel nii képp kuy liggéey fii boo ñëwee sa minimum deux heures de temps ngay def diggante ànd ak fii ñëpp xam nañ ne lii ñu def fii. muy contrôle de visite technique bi ça pose un problème mais on voit pas décider kan mooy jóg taxaw régler problème embouteillage bi li ko waral mooy camion yi dugg port camion yi ñoo bare bu njëkk euh, avant avant régime bi fi euh, gouvernement bi fi nekk ni bi fi jógee euh, solution bi mu tëraloon moo taxoon embouteillage dañoon fii xam nga li ma la wax ndax bi mu ko tëralee dafa defoon camion yi heure xëy duñ daw heure wàcc duñ daw ñu de loolu lan xalaat ndax xam nga camion mag ak auto bu ndaw wa auto bi mënu koo dugle ndax worul ba pare te bu dikkee ba ci dig yoon wi embouteillage am bu camion bi taxawé auto bi taxaw fu ñuy jaar kon duñ am fenn fu ñu jaar ñun ci suñu xalaat ci bop dal xalaat na ne lool la. le matin da ngay gis plus de 800 mètres de queue de part et d'autre de de ce service là ñoom ñi créé embouteillage bi mais je pense que lool bu fi génnoon di nga gis ne affaire dina tané mais mi ngi yagg les gens perdent de l'argent

ndax bu dee góor la sax yéen góor ñi mën nañu xëy na ne amul problème mën nañ koo dox waaye xam nga doon mag fajaru xëy 4 heures de matin yendu ci géej gi ngelaw li di la wal ak sedd bi ba ay 5 heures nga wàcc war a daw dem ci sa kër ci sa njaboot am oto bu la yóbbu xam nga loolu mitti na. métti def na parce que des fois da ngay ñëw taxaw doo gis oto ay 20 minutes 30 minutes nga ko def ci arrêt bi doo gis doo gis oto da obligé nga dox wala ngay jéem a pour. Euh, pour kii quoi pour gars yi yóbbaale la mais xam nga c'est pas facile daal. motage bi daf ñuy tere def lu bëri parce que yenn saa boo wàccee wala nga dem fenn pour nga egg sa kër fu nga war a def euh, une heure de temps wala 30 minutes nga def fa 3 heures de temps vraiment loolu day tardeel réew mi euh, vraiment loolu boo ko boo xoolee si boo xoolee liggéey yu bëri dañuy tardé boo booy dem fenn da ngay tardé booy liggéey tamit da ngay tardé vraiment loolu avancé wul réew quoi.

parce que bu marché le moom dina fekk nit ñi wàcc da ngay jógee la fajar ñëw ci marché bi nga ñëpp dem le soir boo fi naree génnee poisson wala ñu daa mais sont là bu lii yëpp ci ci loolu la fii nga leen di nga di chaque jour 4 heures de temps suba 11 heures laa jóge au bureau pour dem Mermoz dellu si fii 11 heures 13 15 euh, heures laa dellu si donc une journée morte et, et tout ce que ça représente comme perte donc affaire métti na lool lool wóor na yàlla ak jëmm yonent bi de metti nañ ñun ci ñun ñii jigéen ñi metti na trop ci ñun ndax bu dee góor la sax yéen góor ñi mën nañu xëy na ne amul problème mën nañ koo dox waaye xam nga doon mag fajaru xëy 4 heures de matin yendu ci géej gi ngelaw li di la wal ak sedd bi ba ay 5 nga wàcc war a dow dem ci sa kër ci sa njaboot munoo am oto bu la yóbbu xam nga lool mitti na li war na def moo di camion yi lan waroon di bàyyi ba guddi jot ñu am heure boo xamante bi dañ leen koy dawloo waaye buñ bëggee camion yi ànd ak oto yi ak oto yu ndaw yi liggéeykat yi war a ñun ñi liggéey war a kon ñun duñ am oto bu ñu jël euh, avant avant régime bi fi euh, gouvernement bi fi nekk nii bi fi jógee euh, solution bi mu tëraloon moo taxoon embouteillage dañoon fii xam nga li la ndax bi mu ko tëralee dafa defoon camion yi heure xëy duñ daw heure duñ daw jamono jamono rek vraiment ku jël vraiment rek ñu jël waaw ñu jël ci ay matukaay yu kii daal ñu jël ko vraiment. pourquoi ñu jéem a aménager beneen beneen yoon géej baa ngi nii amul amul dara pourquoi pas wut benn yoon yoon boo xamante ne nii suñu mbokk boo garaay yor yu mag yi. ñi nga xamante ne ñoom port dañuy liggéeyee jóge port dem gën gën dëkk pourquoi pas ñoom mu ñoo dem foofu bàyyi tëli bi nga xamante ne mooy jëlee mooy mooy jóge Pikine ba dakaar oto oto

su ma sañoon nag de par ma voix xam nga ñu mairie bi gën cee jàpp ndax ñu suñu kàddu ñu koy wax mairie bi mairie bi wax ñi nga xam te ñoo ñoo ñoo gën a kawe quoi mais instant bi ñun mairie yaraax lañuy lañuy la ñuy sàkku ndimbal mu jàpp si quoi instant bi jeunes yaraax ak ñi nga xam te ne ñooy dem liggéey chaque jour buñ seen ba ngeen ngeen jàpp ñu si quoi waaw wasalaam. Sénégal